bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki jullit yi nga xam ne yéen a ñuy toppandi seen rajo télévision bu diine ji TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amaan mbégte kontaante dellu seeg yéen seen émission bi nga xam ne moo di laaj ak tontu waaye itam comme ni ma ko waxee sànq rek ci ginnaaw di wax ne numéro boobu nga xam ne moom lañ leen joxoon ngir ngeen di si jaare seen jaarale seen laaj muy 70 603 28 48 yàqkat yi dañu fay jaar ba fu mu toll nii ñoom ñëw mujj yor numéro boobu maanaam su ngeen ñu woowee appel direct di ngeen ñu jot waaye bu fekkee da ngeen ñu envoyé appel ci whatsapp ci ñoom lay dem donc kon numéro boobu bu ci kenn envoyé ti message la tànk ñu koy lijjanti doo ko dellusiwaat euh, ci li nga xam ne moo di liggéey bi sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaara bàyyi la yow te mu ngi nuyu wanteeg auditeur ak téléspectateur yi nga xam ne ñooy bàyyi xel rajo télévision bu diine ji TV. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala alfaatixi alxaatimi sayidina muhammad nasir alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn diine ji tv di ko wéttalikoo yéen ñépp maa ngi leen di boole juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jël nuyoo boobu di ko gungeen ndokkeel jëmee ko ci jullit ñëpp ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski ñi di ko dund ak yéen di fukki fan yu bari ngëneel di fukki fan yi suñu borom bëggal boppam di fukki fan yi suñu borom yëkkati ay darajaam di fukki fan yoo xam ne suñu borom defal na ci promotion boo xam ne kenn mënu ko lim xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yooyu moo yi njëkk ci weeru tabaski fooraay ga ak promotion ga ak yëkkatiku ga moo waral yàlla ak boppam mu ngi cay gëñ ba mu ne wal fajri wala yaalil asri wal fajri mooy fajar ak arafa nga xam ne jaam yëpp dañuy war a bëbb war a dajee arafa war fa bàyyeekoo bëbb sànni ji jamratul aqaba war faa bàyyeekoo bëbb dem màkk def tawaaful ifaada ñii ne mooy guddeeg bisab loj bi di bisab tabaski bi waaye li gën a wér ci mu fassiroona yi mooy fajar ak arafa di fajar bër set di juróom-ñeenteel bis bu foor boobu suñu borom subhanahu wa mu ngay gën ci fajar googa euh, su ko defee fajar dafa am secret xam nga buñ ne fajar xarale rek ñu bëree ngi war a yeewu war a préparer sangu ñu am diine julli ñu amul diine yëpp gàddu seeni saak génn jëm ca marché ba war a dajee foofa loolu dafa niroog tamit bu bu ñu walee bufte bi wala ñaareel pour ñëpp war a dekki génn ci seen biir bàmmeel yi war a dem dagee ca péncam yàlla ma looloo war a yàlla di gën ci fajar moo gën tamit moo gën mu tax tamit muy gën ci yoor yoor di wa duha waaye fajar gi tamit mën naa dugalaale balle gi yàlla ballalee roox yi ci aalamul arwaax te fekk booba ñëwaguñ ci aalamul asbaax ballak rooxu yooya noona yàlla tamit ma ngi cay gëñ dugalaale ne wal fajri kon wal fajri googu ba mu ca tegee ba mu ca gëñee lu mu ca teg wala yaalin asri wala yaalin asri nag mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski kon fukki fan yooyee sax dugalaale ne wal fajri ndax wal fajri gi mooy euh, fajar ak juróom-ñeenteel ga kon kay dugg na ci wala yaa leen asri googu nag dugalaale arafa dugalaale bisab tabaski bi dañu nekk guddi yu foor yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jàngale ci xaddis boo xam ne buxaari yu ak muslim yépp andi nañ ko ne yonentu bi di ci wax ne jëf yu baax ñiy jëfal yàlla amul bum ci yu ci soppee ni jëf yuñ ko jëfal ci fukki fan yi kon def lu baax mosta dañ di ñor yàlla waaye nag gën na ko ñor ab jaamam defal ko ko ci fukki fan yu njëkk ci weer wi moo tax weer wi bosaana jot mag ñi xam dara dañ ki daan tàmbalee ay tur di ko ci sikar ñenn ñi tàmbalee ci seeni jumaa ñi tàmbalee ci rëdd ci seeni daara ñii tàmbalee ci maanaam gas ci ay teen ñi tàmbalee ci sos aw yiwu wu dul jeexati ngir bëgg bu jëf yi di yëkkatiku rek fekk leen loola ñoom soobu woon nañ ca fukki fan yu foor la mooy fukki fan yi nga xam ne yonentu yàlla Muusaa moom la ko yàlla santoon mu dolli ko gannaaw fanweeri fan yi mu horoloon yàlla dem ba ca fanweereeli fan ba gémmiñam soppeeku ci bëccëg bi mu socc sama borom ne ko xanaa xamoon ne jaamu gi may jaamu ni ci bàyyi lekk bàyyi naan ba sa gémmiñ gi soppeeku nga xam ne xet gi mu ngi amee beneen xet waaye fekk na xet ak parfum gi gën a sàlli la ca aljana ëllëg tamit ca yowmal waaye kon nag sa benn fan bii nga socc da nga ko remplacer yeneen fukki fan fukki fan yooya mu remplacer woon ko mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski kon fukki fan yu foor la kooku mooy walla yaali asri wala yaali asri gi moom dafa dugg ci weer yi nga xam ne ci weer yi aj yi la dugg na ci weer yi aj yi ndax alxajju ashrun maalumaat la alquran wax ñetti weer la muy wori diggi tabaski kon tabaski ngi ci biir waaye wala yaali asri googu tamit dugalal ne ashrul xurum yi dugg na ci biir fukki fan yooyu dugg na ci biir weer yi nga xam ne même ci jamonoy jaahiliya ba lislaam ñëwagul tamit kenn du ca xeex kon nag yéen mbokk jullit yi may déglu maa ngi leen di ñaan yée nga yéen a nga ba yéen ñi xiiroon ci def lu baax lu ba def lu baax du dañ mukk di xew du sàppi mukk du ràpp mukk ndax albiru laa yablaa waaye gën leen a takk seen digg yi ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski ngeen profitoo ci ndax promotion la te bu la yàlla defalee promotion da war a góor góorlu nga profito ca. gis nga fukki fan yi benn fan boo ci xoor yàlla dafa la koy bindali payoor ak ku xoor xat boo demee nag ba ca juróom-ñeenteeli fan ba di bisab arafa ba nga woor ko yàlla may la promotion ku bàkkaar yi nga defoon ci mille 2019 yëpp mu jéggal la ko bàkkaar yi nga def ci 2020 bi yëpp mu jéggal la ko mu kafaara ko kon loolu nga ne la lu rëy rëy rëy gis nga yow mi nar a tabaski sax dañuy bañ sa yiw wi wàññeeku keroog bañ ne weeru tabaski wi teru na rek bëgguñ nga dagg ci dara ci sa kawar bëgguñ nga dagg ci kawaru xar mi nga nar a tabaskee dara ndax yooyu day nekk ay yiw ca kawari xar ma ki sa kawar gi yow ki sa bopp nekk jëmm yu lay seede ëllëg ki sa kanam tamit ci sa borom ngir bañ sa yiw yi wàññeeku rek moo tax ñii ne la bul watu say kawar waaye xar mi nga nar a tabaskee sax wala bëy wi wala nag wi wala gëléem gi bul wàññi dara ci kawaram ndax boo léegi kawar yëpp dañuy nekk aw yiw waral la waaye ñeexal la waaye dañuy nekk tamit ay jëmm yu taxaw di la seede ci li nga def te xam nga ne yéen xiw xiw yàlla kenn xamu ni mu toll yàlla xam ni yiw toll kenn xamul ni mu toll mooy loo xam ne daal yiw buñ ko tegee ca balance ba moom benn yiw bi dafay fees lu fokk ñu dem teggi ba pare door a tegaat leneen kooku mooy benn xasanatu te mu ne man jaa bil xasanati fa lahu asru am saaliha kon nag fukki fan yii tabaarakallaahu njëkk ci weeru tabaski bi di wala yaale asri maa ngi ciy ndokkeel mbokki jullit yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi su mu bañutoon guddal naa la wax ne mbooleem yonantu yi seen victoire yu bari ñu ngi ko amee ci fukki fan yi e, njëkk ci weeru tabaski hmm. yonantu yàlla Moussa ci la amee victoire am yonantu yàlla Sikar Sakariya ci la amee nangu ñaanam yonantu yàlla Yaquba ci la jotee mbébétam yonantu yàlla Yusufa su ma bañutoon guddal dinaa la wax première fan ba yonentu sàngam lii la ca am deuxième jour ba yonentu sàngam lii la ca am ba ca fukkeelu fan ba rawatina bisab juróom-ñeenteel boobu di bisab arafa bi nga xam ne ci la aadama ak naa sayduna saydatuna xawaa gisante fekk kii ba yàlla da leen a wàccee am leen wàccee ci aljana kii mu wàccee ko jidda muy suñ maam aadama kii mu wàccee ko inde muy suñu maam xawaa ñiy dox di wërante kenn ku nekk di wër sa morom ci fukki fan yii tombeeg bi sa juróom ñeenteel ba ci lañ door a gisante ci place bu ngi tuddee Arafa waaye gis nga tamit fukki fan yii ci bi sa juróom ñeenteel ba ci la yàlla signé contrat ak yi fekk boobu benn rooxu sologul jëmm ci alastu bi rabbikum xaaloo balaa ci fukki fan yi ci la ci tombeeg bi sa juróom ba ca place ba tamit ci Arafa kon li fukki fan yu njëkk yi ëmb ci yiw ku ko doon wax du jeex mukk kon nag ku ci man profito wàccee ci kaamilu alxuraan def ko lum gàtt-gàtt ku ci profito man cee xoor loo ca man bul ko xeeb ku ci mën a profito sàkk ndimbal jëme ci néew ju doole ya bu ko xeet rawatina mbokk yi nga am tabaski euh, daanu ki seen kaw ak fi jamono ji toll benn dërëm boo leen ca jox dimbale leen ko yàlla day ful loola yi woo xam ne kenn xamut ni mu toll profito ca nga seeti ku feebar profitoo ca timit nga nga fexe ba teqali nekk ak njàqare nga fexe ba teqali ko moom kon daal fukki fan fani promotion la yoo xam ne lim nekk ci yiw kenn xamut mu toll yàlla nag dafa baaxoo ñuy may ay promotion yu yàgg léegi-léegi mu may ñu promotion boo xam ne benn ay ay waxtu la ay waxtu rekk la ak ah, mu may ñu promotion boo xam ne saa la benn waxtu rekk ak ah, léegi-léegi mu may ñu promotion boo xam ne ay maanaam ay ay fan la fan lay doon benn fan léeg-léeg mu may ñu promotion boo xam ne weer la léeg-léeg mu fay may ñu promotion boo xam ne ay fan la léeg-léeg mu may ñu boo xam ne atum lëmm la douze mois boo jëlee weeru koor promotion la boo xam ne un la ndax yonentu bi nee na koor ba koor dellu si lu fi nit def ci diggante bàkkaar yàlla dafa la koy jéggal kon diggante boobu euh, maanaam promotion wu un an la muy koor ba koor gi dellu si waaye tamit mu ne tamit ajjuma ba ajjuma lépp lu fi jullit bi def ci ay bakkaar yu ndaw yàlla daf koy jéggal kon foofu promotion semaine la waaye gis nga tamit mu ne ajjuma am na waxtu nangu ñaan saaxa boo xam ne boo ne fa allahuma rek bal bu tàkk la kooku promotion fu waxtu la waaye tamit wala yàlla na asri gii promotion fu fukki fan la xëpp na semaine kon nañ ci profité bu baax a baax a baax yokk ci yiw ci wax ci jëf ci pas-pas ci jëflante lépp luy mbon ñu lu tuub ko ba fexe teqali kook moom raxasaat ko ci jikko yi nu gën a rafetee kon loolu laa doon ubbee Cheikh Tidiane euh, jëmee ko ci mbokki jullit yëpp ci fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weeru tabaski wi. jërëjëf Oustaz Hady macha allah ci loolu nga xam ne baaxee nga ñu ko ci fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weeru tabaski ak euh, la mu ëmb macha allah xam naa comme ni nga ko waxee rek bañ jël waxtu wi léegi dañuy dugg rek ci li nga xam ne moom moo di laaj yi Oustaz kii nee na dafay laaj. Euh, dafa amoon jëkkër ñoom ñaar ñu am problème bi ñu amee problème nag mu dellu kër papaam ak yaayam léegi nag ñaan jëkkër ji baat toll na ci juróomi ñetti at nag boobu ba léegi nag jëkkër ji nagul koo may baat jëkkër ji mujj na takk beneen soxna muy laajte ba xam lan la ko lislaam sant moom ci toogaay bu yàgg bi xam ne mu ngi ko toog te jëkkër ji nagul koo may baat. waaw ñaara mën a am su fekkee ne jëkkër jooju doon ko denc dafa ko lor. dafa lor soxna si ci wàllu dëkkal walla mu lor ko ci wàllu dund walla mu lor ko ci wàllu faju walla mu lor ko ci wàllu dëkkoo ku mu ci ñeenti benn bu mu ko ci lor te mënta muñ na dem tawat mu kalaame ña ko ko mayoon muy ay waajuram buñ mënee woolu jëkkër ji mbaa ñu téléphoné ko xamal ko ne ko nag dañ lay may soxna si pour nga teral ko loolu waaye duwut pour nga toroxal ko lislaam diine la juy santaane ñi teral jigéen ñi waaye duwul diine juy santaane ñi toroxal jigéen ñi yenoon too ngi waxal boppam ne man ma ma maa na illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun nit maanaam jigéen gu koo gis muy teral góor rek muy te muy góor guy teral jigéen rek jigéen góor gu baax la waaye koo gis mu leen di teral rek mu leen toroxal rek ko ku bon la loolu ñu xamal ko ko bu fekkee ma ngi ca continuer ca lorga léegi nag ñaari fami yi ñooy mujj toog dañuy def benn délégation ñu bàyyeekoo ci wàllu jëkkër ji ak délégation bu bàyyeekoo ci wàllu soxna si te mooy seen waajur yi wala ñañ déléga ñu toog waxtaan càmbar su fekkee jëkkër jaay tooñ ñu ne ko bàyyil sa tooñ yi su fekkee jabar jaay tooñ ñu ne ko bàyyil sa tooñ yi su fekkee ñoom ñaar ñooy tooñante nag ñu bokk yedd leen su fekkee jëkkër jaay continuer tooñ rekk nag te soxna si mënta muñ tooñ ya ci wàllu dëkkal ci dëkkoo ci woddu ci faj dañuy tas sëy ba du ko jox benn dërëm benn àq benn dërëm bu mu ko ci jox sax bu ko lekkee ëllëg dana koo fay ëllëg ci kanam boromam jigéen bu ñu la ko joxee da ngay téye ci teral boo mënut nga bàyyi moom laal quran fa imsaakum bi maaruf aw tasrihun bi ihsaan téye mu rafet baa nga bàyyi rek mu dem waaye nag doo continuer yore soxna si di ko lor ci dëkkal di ko lor ci dëkkoo di ko lor ci ci dundal ak ci faj nga naan maa yore sa buum ak aljana fekk yeewu mal doo dem déedéet jigéen foofa dañu mën na am am na droit ñu tas sëy ba ca saa saasa boo demee xalil nee na bu loraange ji bi jéggi dayoo soxna si ne duma ma jëkkër gi ne du bàyyi ñu wax wax foofa mu ne dana dana dagan sax jigéen fase boppam génn jékki-jékki génn ci sëy ba dem jàppi yaddaam bu yaddaam jeexee rek maanaam bu gisee ji nañ jëkkër mën naa dem waaye loolu mënul am lu dul ci loraange nit ku nekk nag yàgg na xam sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira waaye nag ngay lor soxna si te ne du du ma la fase mukk bu la waajur wax nga du ñu ko fase dañuy tas sëy ba mu dem jàpp ji yadda bu ko defee bu jeexee bu gisee ji nañ jëkkër mën naa dem sëy waaye nag su fekkee ne yow nag loroo ko du ci dëkkal du ci wodd du ci faj du ci dëkkoo waaye moom moo bëggoon bëggatul damaa la bëggoon bëggatuma la ku la ko wax nga xeeb ko sa jabar la ko waxut wala maa manoon mënatuma ku ko xeeb kàddu googu sa jabar la ko waxut loolu amee nag charia day wax ne ah ñaara fi sës dañuy laaj jëkkër ja bu ko neexee mu ne la ah koo bañ moo la gën a bañ demal seeti say bokk ma te samay bokk wala mu ne ko léegi nag la ma defoon ci yow mbaa lu ko ëpp mbaa lu ko gën a néew nga may delloo mooy may gu njëkk ga la ma njëkkoon a takk indil la ko bañ ma lay ba ma lay bëgg ñu ne ma indil waru gar yaag la ci xaju mën naa nekk 500000 mën naa nekk 300000 nit ñu ne ak seen aada naa nekk sax deux millions loola nga takkoon nag yóbbul ko ko loolu la lay laaj charia nee na nang dagan na ci bu Malik nga laaj ko sax lu gën a bëri loola maanaam yaa ngi ci defoon 500000 nga ne ko jox ma 700000 comme loolu ma la ci dara yaa wala mu ne ko jox ma. lu ma la joxoon mu ne ko 500000 mu ne ko jox ma 200000 ta nga dem wala mu ne ko lu ma la joxoon 500 mu ne ko delloo ma 500000 ya ta nga dem ñett yëpp mat na Malick nee na mën nga koo laaj lu toll ni li nga defoon ci moom mbaa ko ëpp mbaa lu ko gën a yées mooy summeeku gi njëkk xew ci lislaam mi ngi dox ci diggante xaysu ak jamilatu keroog ba jëkkër jabar ja taxawee soxna sax ci yonent bi ne ko bëggumaa dellu ci kéeféer te mënumaa bëggumaa mooy yàlla jëkkër ji maa doon denc ak moom ma bu ma doon denc waaye nag maa ngi lay xamal ne ma diineem xeebuma jikkoom lorut ma ci dara waaye maa bëggatut yonent bi ne ko lu mu la cane woon mu ne ko benn tollu sarde mu ne ko kon nag delloo ko ko da nga génn ci sa sëy ba loolu nag buñ koy wax mooy bu lor amut waaye bu lor amee soxna sa manta muñ yow góor gi amal ngor nga bàyyi ko boo amul ngor ne duma ko bàyyi da tas sëy ba mu dem jàpp ju yedda waaye du fa nekk rek nag yorewoo ko bàyyiwuloo ko ne ne fekk bàyyi xumal sëy da déedéet dañ koy tas rek su ko defee léegi euh, mu dem euh, jàpp yi jeneen yedda kooku alquran wax na ko demal ca suratu nisaa yi ba muy wax na xakkama min ahli wa xakkama min ahliha lu mu ca yoo in yurida bay na baynahuma bu fekkee ne def nañ loolu dara mënta taxam nag ñoom ñoom ñooña def del toog waxtaan ñu décider rek lislaam dafa cay ànd bu amul kenn ku ko taxawal man koo man man koo lijjantil boppam te loru la ca sëy ba foofa dana loru mu mën a fase boppam dem jàpp ji yàdda ngir loraange ka mhm. jërëjëf Oustaz Sady macha allah bi leer na kii itam li muy laajte xam naa moom it jigéen la ba tey nee na dafa yoroon bor ci koor gi lu toll ak juróom-benn fan léegi nag bi koor gi jeexee muy fay li nga xam ne moom moo di bor bi bi mu fay bor bi nag day laajte ba xam mën nga boole fay ak yéene gunge weer am ci ñaari yool yépp am nañu ko nangu ci fuqaaw yi toujours damay wax ne nag. faya gën a yaatu gunge gunge mënul génn weeru wari wi weeru wari wi bu jeexee gunge jeex na moom la yonent bi ne man saama ramadaana suma atba'uhu bi sittatin fa ka annama saama dëhra bi sittatin la wax moo ñu moo sax may sens def ko muy nakira ku war weeru koor weeru koor wi jeex nga tofal ci juróom-benni fan juróom-benni fan yooyu nag tofal gi mooy bu mu génn weeru sawaal wi rek muy weeru wori wi waaye bu fekkoon dafa ne suma atba'uhu bi sittati def ko muy liif ak laa muy maarifa kon bu ñuy wori def korite rek ca ëllëg sa rek nga war a commencé te da nga koy war a taqale waaye nag bi bi sittatin la wax muy nakira mooy kon bu la neexee buñ koritee ba pare nga noppalu door a commencé gunge bu la neexee nga dem ba ca buñ buñ buñ koritee bees rek nga toxal ko ca bu la neexee nga taqale ko boo koy gunge bu la neexee tamit nga teqale ko waaye gunge daal mënul paase weeru sawaal muy juróom-benni fan yooya. nekk ci nga tànn ci juróom-benni fan yooyu yoo taqale mbaa nga teqale yaa xam waaye bu mu génn weeru sawaal wi. muy wari wi waaye nag euh, fay moom li ko dooree fi ñu koritee ba ca ñu ne weer wi feeñaat na ñu war a xoor diggante bi yëpp foofi fayee rek baax na fukki weer ak benn yuñ la ko bil portu foofi fayee baax na xam ne ci saxaaba yi ñoo xam ne dañ daan teel a fay bu koor gi jeexee rek ñu fay xam na ñoo xam ne dañ daan bàyyi ba mu xaaj Euh, dem ba am juróom benn weer door a fay am na ñoo xam ne dernier moment ba dañu door a fay ay ah, sutu ci la bokkoon moom balaa fay rek parax lu moo ñëw ñu ne ñaar a tax ñu ne dafa ragal koor ñu ne liggéeyam ci yonantu bi moo bëri woon boole ko bu ko boole koor day métti lool moo tax balaa fay rek day bàyyi ba weeru baraxlu waaye xalaa kulli xaal nag euh, kon faya gën a yaatu gunge waaye fuqaawu maaliki yu ne ñu bëri d'accord nañ ne man nga fay waxtu waay fay nga yéenee xaale ki sa xol bi ne maa ngi fay bisu tay bii ci bi ma xamee woon waaye yéene war naa la ci gunge xale weeru weeru koor bi dañ koo xiyaas ci ku yore woon ba mu tombeeg bisab àjjuma xam nga su boobaa benn sangu rek la war waaye sa yéene sangum jana ba jooju di farata mën nga caa yéene waale sangum jumaa mu yóbbu xale ko muy farata ji yóbbu xale sunna bi comme gunge tamit sunna la fay gi farata la su boobaa sa yéeneeg farataak fay gi moom ngay yóbbu xaale sunnaay gunge gi loolu boobaa rek dana mën a baax. jërëjëf Oustaz Hady kii itam li muy laajte nee na moom da doon liggéeyee ci benn place moo féete woon nag wàllu kees gi maanaam encaissé xaalis bi jamono ji mu liggéey ci place bi nag da doon rocce ci xaalis boobu rocce na ci loo xam ne nag xamul son bi ci nu mu toll léegi nag yàlla dogal liggéeyatul ci boobule place mu bëggoon delloo xaalis boobu xamatul nag son bi nu mu toll waaye am na kersay dem wax borom place bi ne ko lii maa ko doon rocce ci place bi. xamul tam ne somb toll muy laajte ba xam nan la ko lislaam sant ngir mu fayee ko xaalis boobu nga xam ne da ko doon rocci ci place bi ni ko ko lislaam sante daal mooy fay rek su fekkee borom xaq ji jéggalut ko ko te mu yëg ne def na lu bon def na ak càcc xor na ndax ku la lu yëkkati palaasam ni mu toll xamoo nu mu def ba am ko teg ko ci sa loxo lu ngeen mën a juboo yéen a xam moo xam dafa lay fay weer moo xam da ngeen def par six mois ngeen ngeen def inventaire moo xam da ngeen def par un an ngeen def inventaire bu ngeen bu ngeen defee inventaire ngeen séddoo bénéfice ba xaw ma ci lu ngeen juboo yéen a xam waaye su boobaa laa kulli xaal óolu gum la mën a wóolu ak lu ngeen mën a séq ngay jël ci xaalis bay rocci def nga lu bon xor nga sàcc nga def nga yëfi tappale waaye nag comme dem nga ba sa xol sa xol bi yedd la sa bakkan bi nga xam ne moo doon nafsul amaaratu bi suu mujj na ñëw ci maqaamaab nafsul lawaama yedd na la dafa fa sës mooy ñaari yëf ba ñett bu la neexee nga yëkkati som boo xam ne dala dana la wóor nañ ñi ne dafa ëpp waaye manqué moom du ko def nga ñëw rek jox ko waa ji ne ko maa la ko jox yéene xaala ci fay bor donte leeraluloo ko ko da xeetu yonent bi dañoo mooñaale ak sutura maanaam bu njëkk ba ci xeet ya ñu jiitu woon muy yonentu yàlla Moussa ak Ibrahima ak Insa ak ñu mel ni ñoom bàkkaar bu dox sa diggante ak sa morom boo ko koy jéggalu danga ko koy leeralal ah jëlal lii ma laa ko maa ko sàccoon ci yow ah baal ma àq dama dama laa fenaloon baal ma àq dama laa jëwoon baal ma àq dama laa rambaajoon waaye ñun àq yi dox ci suñu diggante mën nañ koo delloowante ci baalu àq bu laajee lañ war a yëkkati ñu war koo joxe ci lu duhut ñi koy leeralante ndax weer xeet wi dañ leen a mooñaale ak sutura kon na yëkkati som boo xam ne yaakaar na ni dafay ëpp rek waaye du manqué mu fas ci xolom ne même bu amee lu ci ëpp lu cay lu ëpp la def naa ko ko muy sarax ko ko nga ñëw ne ko ah mu ngi sanga bi kaw kat damaa yàgg ci sa place daan la liggéeyal xam nga te àq man te ñàkk maa ngi lay yii maa la ko jox ci xol bu sedd fasaale ki sa xol bi euh, euh, maanaam hmm, fay bor gi su boobaa tamit loola loola lool loola loola mën na euh, bu fekkee ne nag defoo loolu nga bàyyi ba dee boo ëllëgee da nga doon daw ak gàcca ci ci waaye boobaa yéen ñaar rek la woon ci àdduna waaye boo liggéey ak ñëpp la ndax da ngay dugg ci buntab yawma tubla sarairu fama lahu min quwatin wala nasirin te yonent bi nee na képp koo xamee dangaa sàcc xal li jàmbur bu yowmal qiyaama la ko xen ko péncam yàlla mi yépp jàkkaarloo ak yow mu ne su fekkee giléem nga sàccoon dañ ko dañ la ko xen ah ku yàlla xen da ko xattan nag boo ci boo sàcc boo sàccee géej te giléem tey nga xam problème de ñoom ñëpp ñuy bëmu mu ne su fekkee ay nag nga sàccoon da nga ko muy di nañ ñi su ko defee su fekkee ay xar ak i bëy la moom nga sàccoon danañ ko danañ la ko yan ñoom tamit ñiy meem waaye tuddul ganaar nag waaye dañ ko ci xiyaas yi mu tudd lañ diggee yam tuddul boobaa tamit boo sàccee ganaar yi boo tudd dañ la ko xen yëpp tamit ganaar yi di sab xam naa coow la dana bëri boo boo fi sàccee suufu jàmbur tamit nañ fa suuf xem rek juróom-ñaari suuf yëpp la jël rek caq caqal la ko loolu la yonent bi wax sallallahu boo fi nekkee naan waaye loolu du ma koy xàttane koo dégg mu ne damaa xàttanut yaa bëgg xen sa bopp mais yàlla comme xen da kenn mënu ki dara kon nag moom bu ragalee gàcca ba defut lii benn mu leeral ko ko jox ko ko mbaa mu ñàkk ko ko leeral te jox ko ko bu yowmal xiyaamee la nga xam ne moo kenn na ko seqoon moom ñépp a koy mujj yëg te loola gàcce gu rëy rëy la ci yàlla ne bis na jot yow ma tubla sarairu fama lahu min quwatin wala nasirin na gaaw dem delloo ji ko loola nu mu gën a gaawee baxalu ko àq même bu ko ko leeralut yàlla xam na lépp macha allah jërëjëf oustaz Hady kii itam li muy laajte nee na dafa jënd xar xam naa njaay njaay la dafa jënd xar ci jamonoy tabaski gi guddi nag la ko jënd bi mu demee yóbbu ko kër ga nag bi mu xëyee xool xar mi gis ne béjjën bi dafa damm waaye nag wér na nag béjjën bi wér na waaye liggéey ba tey mi ngi des ci béjjën muy laajte ba xam ndax xar moomu dina mat tabaski. waaw su fekkee béjjën ba dafa damm boo demee ci risaala ibnu abi saydin al xayrawaani mu ne béjjën bi bu dammee di nàcc du man tabaski waaye mu ne bu fekkee nàccatul rek mën nañ ko tabaski. ndax boo jëlee yonantu bi sallallahu alayhi wa euh, ñeenti ayib rek la lim ci xar wala ci gàtt bu matul tabaski ñeent ñeent ñeent yi waxoon na ci boo xamee dafa patt bët ba dafa patt wala bët ba ma nga ne ñum waaye gisut kooku tudd na ko al awra al bayinu awra kooku matul tabaski bu ñaareel bi tuddoon na buy soox boo xam ne dafa nekk arja dafa laggi di soox ba nga xam ne bu doxee nga xam ko moo tax sax ba mu dafa ne al arja wa al bayinu al alwaxa boo xam ne soo xam nga dafa biir kooku moo mu mën mënul tabaski beneen bi mu ne mooy al marida bu feebar nga xam ne ku gis kar karab gaa nga ñaat daaral mu ne tamit maanaam boobu boobu matul matul matul tabaski kon buy soox mënul boo xamee ne nii tamit dafa feebar ba koo ko gisee xam ne Euh, kiixatut mënul mm-hmm. waaye boo xamante ni bët ba dafa patt mm-hmm. euh, boo boo boo boo ko gisee xam ne kii tamit mënatul mm-hmm. euh, ñett ñeent rek la tudd yeneen yi ci des yëpp ak beneen bi moom ba mu ñeenteelee xaddis bi mooy borom béjjën boo xamee dafa damm waaw bay nàcc béjjën bu damm rek bay nàcc waaye bu nàccatul dara néew ca fu kaaw yéen ñu ne su fekkee bi ngay jënd tabaski bi ayib yi ñuy wax yëpp benn nekkut ca nga jënd ba yeew gannaaw si ga mu ñëw mbëkkante Euh, ba bëjjën bay nàcc wala gannaaw si ga mu damm wala gannaaw si ga mu feebar waaye jamono ji nga koy jënd moom manqué wutoon lépp ma mat waa fuqaaw yi ne nañ su fekkee sa loxo jot na sa gannaaw nga sensé ko ut beneen bu sa loxo jotul sa gannaaw tamit mën nga koo tabaskee dara nekkul ca ndax mbir mi dafa am ñu ne tabaski mën nga yaa ngi koy xéenee ci ba nga koy jënd foofa rek la xéene jotaat bi ñii ne nag yaa ngi koy xéenee ci ba nga koy rendi ñaar yëpp ñaar yëpp nag man na yow nag comme danga nga amoon yéene bi ngay jënd lii laay tabaskee te lépp mat na yàlla dogal gannaaw si gi am lu ko gaar bu sa loxo jotee sa gannaaw demal nga jënd beneen bu sa loxo jotu sa gannaaw loolu nga xam demal nga tabaskee lii ma wax la war ma ci fiqul waadix da nga ko ci fekk hmm. jërëjëf Oustaz Hady kii itam li muy laajte ba tey jële ci mbirum tabaski la rek nee na ci jamono ji nga xam ne feebar bi dafa xaw a taxawal lu bari dëkk bi xaw a doy waar muy laajte ba xam moom ak ay rakkam dineen mën a boole li ñu am daal di jënd xar uh, rek mu doon tabaski comme kër gi yëpp kenn ku ci nekk am ci yool bi wala l'islam daf leen sant kenn ku ci nekk ci ñoom war ngaa jënd sa xarum bopp wala benn xar rek dina leen doy moom ak famille bi. waaw charia du nangu ci tabaski ñi koy. cotiser maa ngi yow ñoo fi bekk nekk nga joxe dara ma joxe dara nga joxe trente mille ma joxe trente mille kii joxe quarante mille ñi bokk jëndam xar doonte ñoo bokk ndey ak bàyyi xaraam na dana nangu nag ñi cotiseel ko waaye du nangu ñi cotisé ko cotiseel mooy ne suñ bàyyi de dañoo bëggoon ko wutal xar man su ma ko mënoon maa koy def yow boo ko mënoon yaa koy def kon nag joxeel dara ma joxe dara kii joxe dara ñi boole lépp jëndal suñ bàyyi mbaa suñ yaay xar mi loolu mooy cotiseel dara néew ca waaye nañ bokk na cotiser nga joxe ma joxe ñi bokk xar mi ku dafa xaram su ñoom ñoo ngi daal bu ca kenn manee ak mën naa jël xaram ma xéene ca ñam dëkk waaye xalil nee na balaa bokkaate xéene bi yool bi mën a am na fekk ñi bokk benn place buñ dëkk ñaareel bi na na fekk maanaam tamit ak xaraaba mooy jege jegeñaale dox ci seen diggante mooy ñu nekk famille ñeenteel bi ñetteel bi na fekk tamit koo xam ne yaay yanu ferama am lépp loo ko war ci moom yaa ko def te xam nga fi bëri na ñoo xam ne mag ñoo xam ne ñoo yenu fermaayu seen rakk yi su boobaa tam ñoom ñoom ñoo bokk dëkk ñaareel bi ñetteel bi timit bokk nañ nekk jege ñaale kon kenn ki ñoom boo amee xar doonte rakk jala mu ne yéene naa ci sama mag yëpp yéene xaale ci sama yaay yéene wàlla ci paa bi yéene wàlla ci sama tante yi nekk ci kër gi menn xar mooma dana leen doy ñoom ñëpp ndax ñetti sarta yëpp dëppoo na xaraaba am na na muy bokk dëkk timit am na xamlul ma uuna mooy xenu sa xene fer xenu ferema ba am su boobaa yooyu yëpp mën naa ne dara néew